ñëw di mottali saar wiñ tàmbali woon démb muy saar wii di suratul asr ñu firi woon bu njëkk ba muy fi borom bi subhanahu wa taala waxee asr waat ci jamono li tax muy waat mooy mboolem doomu aadama yépp ñu perte lañ ci aaya ñaareel ba innal insaana la fi xusr mboolem doomu aadama yépp ñu ngi ci perte nga borom bi subhaanahu wa taala nag daat cay ñoo xam ne danañ melowoo ñeenti melokaan yim tudd ci ñu aaya ñetteel ba muy illa alladina aamanu wa amilu lsalihat wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bilsabr mu génne ca ñi nga xam ne dañoo melowoo ñeent melokaan yi nii ba ci jiitu woon nekk al iman waxoon nañ lu ci aju ci gëm borom bi subhaanahu wa xam ko gëm ko ñaareel bi nag ci lañ tolloon muy ñaareelu melokaan wi borom bi wax ne wa amilu solihat suñu borom subhanahu wa dafa wax ne ñi nga xam ne ñooy ñi texe ëllëg te bokkuñ ci ñi perte ci doomu aadama yi mooy ñi gëm ba pare di jëf-jëf ju rafet suñu borom bari na lu muy boole iman muy gëm borom bi ak jëf-jëf ju rafet ci alquranul karim saa yu tuddee gëm borom bi rek da cay teg jëf-jëf ju rafet nga xam ne bëri na ci alquran mi ngi toll ci juróom fukki yoon ak lu teg yoo xam ne borom bi saa yu waxee alladina amanu dana ca teg wa amilu solihat te ñu jëfe jëf ju baax te comme niñ ko xamee it gëm borom bi subhanahu wa taala jëf jëf ju baax daf caa bokk waaye liy tax borom bi subhanahu wa taala di leen tuddu ñoom ñaar day wane day gën a wane am solo goo xamante ni jëf am na ko ci euh, ngëm-ngëmu doomu aadama ji kon gëm gëm doyut rek waaye il faut nit ki di jëf te jëf ja na nekk jëf ju rafet moo tax borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ne wa bashir alladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannat nee na yow yonent bi na nga bégal gaa yi nga xam ne dañoo gëm ba pare di jëf jëf ju rafet na nga leen bégale ne ñoom kat aljanna ñeel na leen gis nga boobu borom bi subhanahu wa taala lëkkale na gëm ak jëf-jëf ju rafet mu waxaat ci beneen aaya ne walladina amanu wa amilu salihati sa nudxiluhum jannat mu ne ñi nga xam ne dañoo gëm ba pare jëf-jëf ju rafet dinañ leen dugal ci aljanna ya inna alladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzula di waxaat ci beneen aaya ne ñi nga xam ne dañoo gëm ba pare jëf-jëf ju rafet ñeel na leen muy aljanay firdaws euh, kon yëpp nekk ay aaya yu bëri yoo xam ne comme niñ ko waxee ëpp juróom fukki yoon yoo xam ne borom bi daf ciy lëkkale gëm ak jëf-jëf ju rafet moo tax kon njuumte la nit ñiy wax rek ne nit ki di wax rek ne jëf moom euh, amut njariñ waaye la am njariñ mooy la ca xol ba rek la ca xol ba am na njariñ waaye nañ xam ne jëf ja dafay fësal la nekk ca biir xol ba ndax la ca xol kenn xamu ko borom bi subhanahu wa rek moom moo ko xam waaye moo tax kon el jëf ja di feeñ nag euh, la nga xam ne moo nekk ca biir xol ba la nëbbu ca xol ba mënta ñàkk mu fes ca li nekk ca biir euh, ci li nekk ci nga xamante ni mooy ca bitti ndaxte comme niñ koy waxee rek kullu inain bima fihi yandahu ndab lu ca nekk euh, ndab lu nekk la ca biiram lay seeb mooy ndab la boo ca defee diw buy seeb diw lay seeb diw lay lay seeb bu ca defoon ndox it ni noonu noonu la mel xol ba mooy ndab la xol doomu aadama ndax mu mel la ca biiram loola lay fësal la doomu aadama ji di fesal ci ay cëram euh, loolu la doomu aadama ji di fesal ay cëram kon nit ki di wax ne moom xol rek moom la ñuy xool loolu njuumte la ndax borom bi subhaanahu wa taala saa yu waxee la nekk ci xol bu muy ngëm nga rek daf cay teg jëf ju jëf ju rafet euh, muy wane ne li nga xam ne mooy traduire li nekk ca biir xol ba li nga xam ne mooy fesal li nekk ci biir xol ba moom mooy euh, jëf ja nga xam ne nit ki daf koy jëf muy jëf ju rafet jooju noonu kon looloo tax ñu xam ne kon euh, jëf am na palace bu kawe kawe rawatina jëf ju rafet euh, moom am na place bu kawe kawe ci li nga xam ne mooy ci diine ak ci ngëm-ngëmu doomu aadama ji euh, niki noonu noonu la borom bi subhanahu wa it defee ne du nangu genn jaamu yàlla lu dul ne dafa nekk jëf ju dafa nekk jëf ju rafet du nangu genn jaamu yàlla lu dul jëf ju dafa nekk jëf ju rafet jëf ju rafet jooju nag il faut mu am ñaari charte yoo xam ne ñooy tax jëf ju nekk tudd jëf ju rafet Euh, charte bu njëkk ba mooy chartul ixlaas mooy nit ke ba muy jëf-jëf ja na ko jëfal borom bi subhanahu wa taala mooy bu ce ca bokkaale kenn wala lenn jëf ja da koy jëfal borom bi subhanahu wa taala euh, bu dee ak jaamu yàlla euh, na ko def it toppee toppee ko sharia muy na ko def ci comme ni ko sharia diglee muy li ñu tuddee almutaabaa mooy na ko def comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom mi doon jàngale sharia jàngale mu jëfee jëf joojo noonu jëf mu jëfee ko jëfin wu mel noonu moo tax borom bi waxoon ne fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada suñu borom ne woon na képp koo xam ne da ngaa yaakaar dajeeg sa borom subhanahu wa taala ëllëg eh, na nga jef jëf ju rafet te bul bokkaale yàlla ci jëf joojo noonu kenn eh, ñi nga xam ne ñooy ñu koy firi di wax ne jëf-jëf ju rafet moom mooy nga daal di cay bañ a bokkaale yàlla kenn ba pare it nga def ko comme ni ko sharia eh, bëggee comme ni ko sharia bëggee niki noonu ku mel ni al fudayl ibn iyaad bi mu ñëwee ci aaya bi borom bi subhaanahu wa taala di wax ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amala suñu borom nee na daf leen a bind wàcce leen ci suuf ngir mu nattu leen euh, xool ci yéen kan mooy gën a rafet ay jëf fudayl ibn iyaad bi mu koy firi dafa waxoon ne axlasuhu wa aswabuhu dafa waxoon ne jëf jooju kat mooy jëf ju rafet jooju borom bi di junj mooy jëf joo xamante ni jëf ju sell la jëf ju jub la ju jaar yoon la bi waxee loolu ñim toogaloon laaj ko ne ko lan mooy axlasuhu wa aswabuhu lan mooy mu sell ba pare it nekk lu jaar yoon lu jub euh, mu daan ne jëfkat bu fekkee ne sell na te jaarut yoon suñu borom du ko nangu bu jaaree yoon it te sellut suñu borom subhanahu wa taala ko nangu mu daan ne loolu mooy lan mooy mu jëf ja jëfal ko borom bi subhanahu wa taala loolu mooy sellal jëf ja euh, mu daal ne it na def na ko def ala wifqi euh, li nga xamante ni moom mooy ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defee woon mu def ko comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defee woon mu ne loolu moom mooy jëf ju jaar yoon Euh, kon ñaari charte yi mënta ñàkk ci li nga xam ne mooy nit ki def koy jëf na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ñaari charte yi nga xam ne borom xam-xam yi tudd nañ ko te lépp dañ koo settantale ci alquranul karim ba génnee ñaari ñaari atte yooyu kon lii mooy ñaari ñaareelu sifa bi muy ñaareelu melokaan wi nga xam ne ñiy texe ëllëg ñiy bokk ci nga xam ne duñ bokk ci ñiy texee di ak ñiy perte euh, dañ koy dañ koy melowoo euh, buñ ñëwee nag ci li nga xam ne mooy ñaareelu ñetteelu melokaan wi muy attawaasi bil xaq muy watawaasaw bil xaq di te ñuy dénkante dénkante ak dëgg borom bi nee na ñooy ñi gëm yàlla di jëf-jëf ju rafet te di dénkante ak dëgg dénkante dëgg dafa nekk mbir mu am solo ci eh, lislaam eh, nga xam ne ay mbir yu bëree bari la danañ ko tudd eh, nga xam ne it borom bi subhanahu wa taala jox na ko place bu kawe kawe muy dénkante dëgg ci biir li nga xam ne mooy ci biir jullit yi ci seen biir di dénkante dëgg ci seen biir euh, boo xoolee ñaari melokaanu yu njëkk ya yooyu dafay wekku ci doomu aadama ji mooy mu xam borom bi subhanahu wa taala gëm ko ba pare di jëf-jëf ju baax euh, loolu ci moom kese lay yem waaye bii nii di dénkante dénkante dëgg day daal di dem ci ñeneen euh, niki noonu dénkante ak muñu day daal di dem ci ñeneen ñi nga xam ne ñoom lay dundal ci seen biir kon ñaari njëkk yi ci doomu aadama ji rek lay aju moom ci boppam mooy gëm gim gëm borom bi subhanahu wa taala ak jëfam ju baax ji nga xam ne moom lay jëf waaye nag dénkante dëgg moom muy dénkante ñi nga xam ne ñoom la daal di wër ànd ak ñoom ci àdduna bi di dundandoo ak ñoom ak di dénkante ak muñ loolu kon dafay daal di euh, nekk loo xamante ni mutaaddi la mooy day dem ci ñeneen euh, day dem ci ñeneen moo tax borom bi subhaanahu wa taala daal di digle daal di tànn xeet wi def leen ñoo xam ne dañuy dénkante lu baax ci seen biir mu wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen kat yéenay xeet wi nga xam ne yéen a gën ci xeet yi euh, lu tax loolu mu ne taamuruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkar ndaxte la li ko waral mooy dangeen di digle lu baax ba pare di tere lu bon kon borom bi subhaanahu wa taala bi muy wax ne xeet wi xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo gën ci xeet wi li tax moom mooy dénkante ak euh, di laabirante ci seen biir mooy di dénkante lu baax ak di terewante ci seen biir loo xamante ni lu bon la looloo tax borom bi subhaanahu wa taala daal leen di def xeet wi nga xam ne ñoo gën ci ñoo gën ci xeet wi euh, moo tax it li nga xam ne mooy buñ demoon ba xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam bañ a dé dénkanteeti lu bon bañ a teree teeti li nga xamante dénkanteeti lu baax bañ a terante ci seen biir lu bon bu boobaa suñu borom subhaanahu wa taala dina leen mere comme dina leen rëbb it comme ni nga xam ne noonu la ko defee woon ci waa banu israil ndax borom bi dafay wax ne luina alladina kafaru min bani israila ala lisani eh, daawuda wa isa bni maryam dalika bima asaw wa kaanu yactadun suñu borom nee na rëbbu na lenn ci waa banu israil jaare ko ci eh, lammiñu isa ak daawud eh, ndaxte ñoom kat kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluhu daawuñ dénkante daawuñ terewante ci seen biir aw ñaawteef waaye dañ ko daan def mooy ñaawteef yi nga xam ne dañ ko daan def ñoom daawuñ terewante ci seen biir moo tax borom bi subhanahu wa taala daal ne lu'ina alladina kafaru min bani israil moo tax mu rëbbu ñenn ci waa banu israil ci ñàkk a digle lu baax giñ doon def ak ñàkk a tere lu bon gi nga xam ne ca lañ nekkoon kon saa yu xeet wi demoon ba mel noonu nga xam ne kenn dootu digle lu baax kenn dootu dénkante dëgg ci seen biir bu boobaa suñu borom subhanahu wa taala dana leen daal di rëbbu comme ni mu ko defoon ci xeet yi leen jiitu woon Euh, mbir yi nga xam ne nag nit ñi mën nañ cee mën nañ koo dénkante ci dëgg bëri na euh, nga xam ne dénkante ko ci dëgg mën na nekk mooy comme digle lu baax tere lu bon loolu ci dénkante lu baax la euh, dénkante dëgg la moo tax comme niñ ko waxee ci aaya bi léegi mooy suñu borom subhanahu wa taala dafa tànn xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir li ñuy digle lu baax di tere lu bon niki noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon ne man dalla ala xayrin fa lahu mithlu ajri failihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na soññee ci digle lu baax Euh, mooy di dénkante loo xamante ni lu baax la te dëgg la mu wax ne képp koo xam ne danga woote ci aw yiw wala nga tegtale ci aw yiw da nga am fayu ku tol ni lu toll ni kaka def euh, wépp yiw woo xam ne da nga ne kat lii lu baax la nit déggee ko ca yow ba def ba jëfe ko bu boobaa suñu borom subhanahu wa taala dina la fayee lu mel ni fayu kooka nga xam ne dafa def yiw woowu noonu ndax ci sa ci yow la jaare ba xam euh, njub googu ba jëf ko ba jëfe ko lu yiw yiw woowu noonu ci yow la jaare ba gis ko ba def ko ba tax borom bi subhanahu wa taala dina la fay ci yiw woowu bokk na it ci yi nga xamante ni mooy ci dénkante ci dëgg euh, bokk na ca mooy euh, nit ki di tere lu ñaaw mooy saa yu gisee lu ñaaw mu daal di koy tere moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne euh, man raa minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadi képp koo xam ne dafa gis ci yéen lu ñaaw lu jaaduwut na ko dindi ci loxoom fa in lam yastati fa bi lisaanihi su ko mënut mu dindi ko ci euh, làmmiñam mu wax su ko mënul nag mu daat koy nëbbu ci ab xolam euh, mu nëbbu ko ci ab xolam kon gis ngeen lii nii ay mbir la yoo xam ne nit ki war na koo bàyyi xel ci dénkante dëgg euh, te yi yëpp day nekk ci biir dénkante dëgg niki noonu bokk na ci dénkante dëgg it mooy di woo ñi nga xam ne bokkook ñoom diine ci say jëf yu rafet ak yu mel noonu di rafetal jëme ci ñoom ngir xëcc leen ci li nga nekk lépp ci dénkante lu baax la dénkante dëgg la euh, ki noonu it di dimbale ak di euh, képp koo xam ne ku tooñ la wala ku ñu tooñ loolu ci dénkante dëgg la bokk euh, moo tax yonent bi sallallahu alayhi ne woon na unsur aqaaka zaliman aw mazluma na nga dimbali sa mbokk bu fekkee dafa tooñ wala dañ koo tooñ saxaaba yi daan ne ko ah ñun kat xam nañ ne ki nga xam ne dañ ko tooñ nan lañ koy dimbalee waaye ki nga xam ne moom moo tooñ moom nan lañ koy dimbalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane leen tahjizuhu ani zulm mooy da ngeen koy tere mu bàyyi tooñ gi mu nekkoon loolu ndimbal la loo xam ne yow da koy def aji tooñ ji ki nga xam ne moom fu mu toll dafay tooñ mooy nga tere ko tooñ googu muy tooñ kon loolu ndimbal la ak dénkante la ci ak dëgg niki noonu di yéwénal diggante julli di ak di jàppalante ci seen biir yooyu yëpp dafa bokk ci dénkante euh, li nga xam ne moom mooy dëgg kon lii mooy ñetteelu euh, melokaan wi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala it tudd na ko ci saar wi muy di dénkante dëgg suñu borom subhanahu wa taala ñetteelu melokaan wi nga xam ne mooy tax nit ñi mucc ëllëg euh, yawmal qiyaama muy ñeenteelu melokaan wi muy watawaasow bis sabr tey dañuy dénkante li nga xam ne mooy ak muñ dañuy dénkante ak muñ mooy kenn ku nekk ci ñoom dafay dénk moroomam euh, ak muñ moo xam ci muñ ga dafa aju ci gëm yàlla borom bi subhanahu wala dafa aju ce jëfe ga ngay jëfe euh, mbooleem loo xam ne borom bi subhanahu daf koo digle wala di bàyyi li nga xam ne mooy euh, borom bi subhanahu wa taala koo tere wala jub dafa dig dafa euh, muñ ga dafa dégg dafa aju ci dénkante ba ñuy dénkante dëgg ndax dénkante dëgg yiñ tuddoon léegi melokaan yooyu du ñàkk ay lor jugee ca lor yooyu cay jugee nag nit ki daf ko war a muñ moo tax yonente yi sal alayhimu salaam bokk nañ ci ñi gënoon a tar ay nattu ndax ñoom dañoo nekkoon ci ñett yu njëkk yi moo tax borom bi subhanahu wa taala daan na leen nattu moo tax yonent bi daan na wax gën a metti ay nattu mooy yonent yi yonent yi ñoo gënoon a metti ay nattu euh, moo tax kon dina bokk ci mbir yi nga xam ne euh, dina tax nit ki daal di mucc ëllëg yawmal xiyaama euh, bañ a bokk ci ñi ñi ñi nga xam ne dañuy perte mooy di dénkante li nga xam ne mooy ak muñ moo tax borom bi subhanahu wa taala képp ku mu mas a def nga nekk njiit moo xam ci diine la wala len yow borom bi defal na la ak muñ moo tax borom bi daana wax ne innahu eh, wa jacalnaahum a'immatan yadcuuna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinuun eh, wa jacalnaahum a'immatan lamma sabaru eh, borom bi nee na ñooñu dañ leen a defoon ay aimma yoo xam ne ay njiit lañu woon lamma sabaru ba ñu muñee gis nga kon kañ la leen borom bi subhaanahu wa def ay ay ay njiit yoo xamante ni dañuy dañuy gindewe ca lañ nekkoon te muy dëgg mooy lamma sabaru ba ñu muñee kon mun muñ mënta ñàkk wa kaanu bi ayatina yuqinuun te it dañoo nekkoon ñoo xam ne dañoo gëmoon li leen borom subhanahu wa taala woon ca ñoom gëm ga mooy ñu gëm ko ba pare doon ko jëfee ba pare doon ca woote moo tax lool lépp li ko waral mooy muñ ga nga xam ne àndoon nañu ak moom moo tax suñu borom bi subhanahu wa taala doon digal ab yónnantam di ko wax ne ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul muñal comme ni nga xam ne noonu la yónnant yi la jiitu woon bokkoon ci ulul azmi eh, daal di muñee woon mooy ñi nga xam ne boroomu doog ay boroomu doog lañu woon bokkoon ci yonente yi suñu borom subhanahu wa taala tànnoon leen yónni woon leen ci nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wa suñu borom digal ko mu muñ comme ni ñooñu muñee woon kon loolu lépp di wane rek ne ak muñ mënta ñàkk ci doomu aadama muñ mënta ñàkk ci euh, doomu aadama euh, muñit euh, ni comme niñ ko xamee ak fayam fay gu rëy la ak suñu borom nee na innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi xayri xisaab li muy fayee ëllëg aji muñ yi mooy da leen di Eh, dugal aljanna te du leen xisaab eh, du leen réglé kon loolu lu jar a bàyyi xel la nit ki di muñ eh, niki noonu it borom bi ne woon na fasbir inna al aqibata lil muttaqin waxoon na ko ab tam ne ko muñal ndaxte ak muj gu rafet kat ñeel na way ragal yàlla yi mu tuddee ñi nga xam ne ñooy muñ kat ñi ragal yàlla kon ñi ragal yàlla ñoom ñooy dëggi-dëggi muñkat yi ñooy dëggi-dëggi muñkat yi buñ ñëwoon nag ci xaaj yi nga xam ne muñ muñ am na ko ñetti xaaj mën nañ ko xaaj ci ñetti ñetti façon yoo xam ne muñ am na ko mooy as-sabru ala taatillah nit ki muñ ci topp yàlla gi nga xam ne moom lay topp borom bi subhanahu wa taala ndax borom bi subhanahu wa nekkut lu yomb comme woor buñ ci doon joxe misaal euh, loolu ci topp yàlla yi la julli niki noonu nekkut lu yomb waaye nit ki il faut mu jéem a muñ euh, ci jëf yooju muy jëf muy topp borom bi subhanahu wa taala ji daal di xeex ak bakkanam euh, ngir tàmmal ko li nga xam ne moom mooy ak muñ ci topp borom bi subhanahu wa taala moo tax suñu borom digaloon na ab yonentam ne ko wasbir nafsaka maa alladina yaduuna te nga ànd ak ña nga xam ne kat dañuy euh, jaamu seen borom subhanahu wa taala euh, kon loolu mooy muñ borom bi muñ ci li nga xam ne mooy toppi borom bi subhanahu wa taala jaamu ko euh, loolu dañ cey muñ ndax nekkul loo xam ne lu yomb la nan la ca doomu aadama ja nag di muñee moom mooy mu fexe ba sellal Euh, jaamu yàlla ga mu fexe muñ ba sellal jaamu yàlla ga niki noonu it bu koy jëfit mu muñ ca coono ya ko cay fekk bu paree it mu muñ fas yéene sax ci ak jaamu yàlla kon loolu mooy li nga xam ne nit ki war na koo bàyyi xel ci euh, muñ ci jaamu borom bi subhanahu wa taala ak ci topp ko euh, ñaareelu façon muñ bi mooy as-sabru an maasiyatillah mooy nit ki daal di muñ ci mooy yàlla yi ndax mooy yàlla yi bëri na waaye nit ki it mu daal di jéem a fexe ba Euh, muñ muñ ci lépp loo xam ne mooy borom bi subhanahu wa taala la bokk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci juróom-ñaar yi mu waxoon ne suñu boroom daf leen di keral ëllëg yowm alqiyaama mu dal ne bokk na ca mooy rajulun daatuhum raata am daatuhum raatun daatu mansabin wa jamal mu ne góor goo xam ne waa joo xamante ni kat am na ndaw su ko woo fekk ne moom kat bokkoon na ca ñi nga xam ne euh, boroomu taar la nekkoon nit ko xam ne ko am Euh, barke la woon euh, bi mu ko wooyee waa ji ne ko man damaa ragal borom bi subhanahu wa taala bañ a moom ca lam ko woo kon bu boobaa kooku dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo muñ ci mooy borom bi subhanahu wa taala moo tax borom bi ëllëg lam koy fayee mooy jamono ja nga xam ne tàngoor dana metti lool yowmal qiyaama borom bi dana ko keral ca keru arsham euh, moom borom bi subhanahu wa taala niki noonu it bokk na ci muñ ci li nga xam ne mooy bañ a mooy borom bi subhanahu wa taala aji woor ji nga xam ne dafa woor te mënoon a dugg ci néegam daal di te euh, jëlam ndoxam naan wala mu togg ak toggam lekk waaye muñ borom bañ mooy borom bi subhanahu wa taala tax mu muñ loolu lépp euh, loolu it bokk na ci muñ borom bi subhanahu muñ ci bañ a mooy borom bi subhanahu wa taala euh, bokk na ci it muñ muy ñetteelu xaaju muñ bi muy muñ ci li nga xam ne mooy dogali borom bi subhanahu wa taala as-sabru ala aqdarillah muy daal di muñ ci dogal yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala dana ko dogal moo xam ay feebar la wala ay nattu la wala yu mel yooyu yëpp nit ki jaam bi daf koo daf ko war a muñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon na maa yusibu al abda min nasabin wala wasabin wala hammin wala xusnin wala adan wala gam xatta shawkata yushaakuha illa kafara allahu biha xataaya yonent bi ne woon na jullit bi euh, dara du ko dal ci coona wala ci feebar wala yu wala ci li nga xam ne mooy njàqare wala ci tiitaange wala ci ay lor wala ci ay xat-xat dara du ko dal euh, ci mbir yooyu lu dut ne donte ne sax ab dég la bu ko jam mu ne lu dul ne borom bi subhanahu wa taala daf koo jéggal ay bàkkaaram ci loolu ko dal muy nattu boobu ko dal muy dogali borom bi subhanahu wa taala yooyu tegu ci kawam kon nit ki bu mu jàpp rek ne lu ko dal rek dafa war a daal di nekk di jàmbat ak di def yu mel noonu waaye na xam ne loolu kafaara la ci moom mooy borom bi daf ko ciy jéggal ay bakkaaram na muñ saa yu muñee nag bu boobaa borom bi subhanahu wa taala dana ko jéggal ay bàkkaaram te xam ne borom bi subhanahu wa la lu gën ci moom rek la la ko defal kon lii moo aju ci saar wi nekk saar wi di saaru suratul asr euh, di saar woo xam ne saar wu am solo la euh, borom bi subhaanahu wa taala rëdd ci yoon wi nga xam ne mooy tax jàmm ëllëg mu mucc bañ a bokk ci way texeed yi nga xam ne ñoom la tuddee alxusra alxaasirin mooy euh, inna al insana la fi inna la fi xusr mooy doomu aadama yëpp nekk ci pert nga muy ñeenti jikko yooyu ñu tudd léegi Euh, gëm borombi bi subhanahu wa taala di jëf-jëf ju rafet di dénkante dëgg te sax ak di muñ lor ya nga xam ne moo lay fekk ci loolu noonu kon nit ki na góorgóorlu bu baax a baax ci jikko yii nii bu ci nekk bu ci ca am euh, ak wàññeeku rek mu jëm koo yokk euh, ngir mu mën a bokk ci ëllëg ñi nga xam ne dañuy matal sëkk dañuy matal sëkk seenu ngëm ci melokaan yooyu ñu melowoo Euh, di bokk ci ñi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala génnee na leen ca way perte ya euh, yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala boole ca ñi nga xam ne dañuy euh, bañ a bokk ca ña perte borom bi boole ñu ci ñami dugal ëllëg aljanna te bokk ci ñi nga xam ne dañoo melowoo